alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin nabiyina wa xabibina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi dellu siwaat nañ di sant sunu boroom sunu boroom aji màgg ji te kawe ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu boroom bokkliwu ko kenn waaye nirliwu ko kenn ñu ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaan sunu borom mu dëkkee dotti mem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci xàll wu yaawu nga xam ni mooy leeral jullit ñi seen mbirum pas-pas muy loo xam ni bu leeree day nit ki texe na ba faw waaye bu lëndëmee ci nit ki nit ki alku na ba faw mooy gaal ak yonent yàlla nuux ku ca yéeg mucc waaye ku ko wuute da ngay alku da ngay sànk yàlla suñu borom booleñ ci musal ci sànkute ak alkaande dellu nañ tey suñu ñetteelu xutba ci laaya jooju nga xam ne moom la suñu borom di wax ne inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa shaytaane de seen noon la jàppee leen ko noon ndax moom day li ko yitteel la ca gën a rëy mooy mbooloo mu mu àndal tàbbi sawara ndax yàqule na ba noppi moo tax muy wër ku mu àndal ngir alku suñu fàttalikoo suñu xutba ja jiitu leeraloon nañ kan mooy seytaane kan mooy doomu aadama kan mooy jinne ak fi baay aadama jaaroon ak seytaane ba mu génn ko biir àjjana suñu xutba ji weesu leeraloon nañ seytaane ci boppam nag pexe yi nga xam ni moom lay lal ngir yàqal doomu aadama bokkoon na ca yooya bu yegsee dafay fóon bakkanu nit ki xool gan nget moo koy xeeñ su ko defee day xam point fort nit ki ak point faible am kii kat ku ko jaare ci nangam moom doo ko jot ndax moom kat jàmbaar la wax dëgg yàlla koo xam ni doo naan sàngara doo njaaloo doo jox loxo jigéen doo wéet ak jigéen doo caaxaan doo lekk riba doo GPM yi jàpp naa ni yooya bu ko seytaanee xamee ci yow ak ndëgër laay googa bu dikkee du la jaare foofa waaye day xool ca la nga gën a bëgg muy xir ca jaamu yàlla mu jaar la fa kon kenn ku ci nekk ak yadwam lay ngàddee ndax mag la mu saay-saay ca xam li muy def ndax expérience bi mu am ci yàq day ay junni junni junni at la comme ni ngeen ko xamee ci sunu xutba jee weesu kon ñu ngi sofoon tënkoon sunu kàddu ci xutba ji weesu seytaane bu ñëwee day fóon bakkan bi xam kii jan jàngoro la am mu jaare ko foofa waaye nag kenn ku ci nekk ca la nga yëngu it nag seytaane bu ñëwee moom it day xool kii li muy yëngu lan la seytaane léeg-léeg dina ñëw fekk ay nit ñu ñuy tuddee ay sufiyanke nga xam ni baatab sufiyanke moom buñ ko déggee xel yépp dañuy dem ci mën a jaamu yàlla donte sufiyanke gu njëkk ga ak sufiyanke tey gi bokkut amaana laa lay xutbaa nga ca kanam yoo xam ne dees na ko def ci tasawuf mooy lan ak nit ñi déggin wiñ ci am te fekk njuuxi naag xaqiqatu tasawuf dëgg-dëgg dëgg na sax tasawuf am nay bànqaas ay mbaax yu bari yu ca am donte am nay jàdd jàdd ay shataxaat waaye ñu njëkk ña ñu bari ca ñoom tasawuf yàq taxu leen woon a jóg déedéet sos ay bidaa taxu leen woon a jóg waaye danoo jaaroon ci aw yoon bëgg lu baax te it bariwaa na ko bëgg lu baax te yoon wan ko jaare du fa ñooñu nga xam nit ñi sax loolu jërut xam-xam bu xóot nit ñi ci seen jëmmi bopp fii ci réew mi ñu nekk rek bu nu xoolee xam ngeen tasawuf gu yàgg ak bu tey gi bokkul tasawuf gu njëkk ga boo xoolee nit ki dëddu àddina la ko doon yóbbee ak bay di dundee ak dimbali nit ñi walus walis ferenkulaay nit ñi di la dimbali gis ngeen tasawuf ak tey gi ña koy woote wa daanaka ñoo bëgg àdduna ñëpp ñoo gën a bëgg àddina ñëpp ñoo gën a tooy oto ya nuy war gën a set la nuy sol gën koo baax le it nag di lekk li fi nit ñi tey jariñoo lan yore xam ngeen ni loolu ci nit ñi am xel rek xam nañu tasawuf gu njëkk gi amoon fii ak bu tey gi bokkun kon kadaalika gii may wax it noonu nga koy nattee rek gaa yi tasawuf yi nga xam ne jaamu yàlla rek leen yitteel nga xam ne ñoom dara rey àddina waxuñ ca seytaane bu ñëwee dafay xool foon seeni bakkan xam ne ñii kat ay jaamukatu yàlla lañ kon ku leen bëgg a nax ci jaamu yàlla nga leen di dikkal su ko defee day ñëw fësal ci seen kanam di leen wan ay xeeti wuññeeku ak i kiiraay yu mureeku ak ay mbir yoo xamante ni ay woote woo yu jàdd yoon la yoo xam ne da leen di wan ni yii kat bu ngeen ci jaaree bu soobee yàlla di ngeen gis nangam loolaa waral waa ji mu ni moom du génn di jaxasook nit ñi foofu la seytaane tàmbaleeg yow doo génn jaxasook nit ñi day fexe ba doo dem jàkka ja te xam ngeen yonent yàlla bi doon na ngéejoo ñu dul dem jàkka ja mu gannaaw leen lakk seen kër yi doo dem juma doo aji màkka te it créer leen ay xalwa yi ñu dugg xalwa dugg xalwa musul am ci lislaam déedéet yonent bi sax daaw ko def sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xeet yi nga xam ne yu ñu sos la bokk waaw ndax nit ki saa bu duggee xalwa jumaa da koy rate julli juróom da koy rate te loola képp ku ko def te fekk nga tay ko ñetti àjjuma yu tegaloo yent yàlla bi ni yàlla day kaste sa xol ba leer dootu ci mën a duggati waxuma laak nag julli juróom ya nga xamante nii moom yonent bi ni mu amee yërmande ba nar a lakk sa kër kon njaaxum nga def su ko defee seytaane da lay wax tëjul indi la ay xeeti zikr ay wird yoo xam da nga koy wird nga tàmbali di xiifal sa bopp te nit ñi dañoo xamul ni am nay sew-sew yoo xam ni même bu nit ki amul xam-xam bu ko seetloo sax gis ko gis nga doomu aadama su xiifalee boppam ba xiif bi tar mbaa feebar ba feebar bi metti day waxtu te day janeer laaj leen ko ñu siburu gis nga doomu aadama su siburoo ba ba siburu bi metti yaram wi tàng mu xiif day janeer mel ni dafay am yu muy gis waaye dafay waxtu tamit yow mi dend moom yaa ngi dégg muy wax ay xeeti kéemaan waaye moom ci jëmmi boppam même bu ko waxut mi ngi gis ay kéemaan loolu xiif da koy waral su ko defee sufiyanke yi seytaane da leen di tàggat ci xiifal parce que iblis saay-saay la xam ne nit ki bu xiifee bu yàggee dana am lu muy yëg su ko defee nit ki day xiif ba xiif bi ay butitam jaxasoo su ko defee mi ngi dégg ay son ay kaddu yuy wax ak moom fek kaddu yooyu seytaane la mu génn ci xaloo bi di wax nit ñi wax nañ ma wax yu nañ ma nangam wax yu sax la koy tuddee nag fekk iblis moo doon def loolu wa illaa boog muy dégg ay kaddu bu ko defee kaddu yi naan ko nangam am na ci ku mel ni Abdul Qadir al yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ku mel ni imaamu Zahabi mu koy tafsir tarjamaan ca siyar wax na ci moom wax yu rafet donte nag am nay mbir yuñ ko waxal te defu ko dañuy wax ni mas naa toog ba mu yàgg seytaane daal di koy feeñu ni ko ey Abdul man maay sa borom yàlla ah wàcce naa la julli fekk dafa njëkk couleur néeg bi couleur bu bleu mu ni tekk di ko xool rek ba mu yàgg mu couleur ko couleur bu soppeeku bu jaune wala beneen ba mu yàgg mu soppeeku mu couleur ko bu ñuul ba mu yàgg mu soppeeku mu couleur ko bu weex ak mi ngi xotoog di xool rek ba mu yàgg mu ni ko man maay sa borom yàlla bis ni ki tey wàcce naa la julli léeg nga dégg ñu wax loolu dan maa fee ñu wàcce ma julli fekk iblis mooy def loolu abdul xaadir ni ko tuuga waay kàccoor bi saay saay bi bi mu ne ko kàccoor bi saay saay bi iblis ni ko waaw yow noo def ba xàmmee ma te technique bii ma la naxee sa junni junni junni junni morom di ay boromi xam-xam comme yow nax naa leen ci mu ne ko damaa xam ni yàlla dafa wax ni waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba dee dikkal la kon su boobaa amul wax ji koy weddiwaat ndax alquran moom dootul soppeeku beneen bi ci des mooy leer gi nga indi danoon soppeeku te leer suñu borom amul soppeeku wax ko ay seetlu yu mu def iblis xam ni tey jii moom saay saay la bul jàpp yu mel noonu seytaane nax na ci ñu bare bare bari kii wàcc naa ko julli wàcc naa ko nangam yow sariya tënkatu la yow fi la yaa xadare yam xadir sariya yi Moussa tënkatu ko moo tax yow sariya yi Muhammad tënkatu la su ko defee waa mën naa génn bàyyi julli waa ji mën naa génn euh, ni sariya may na ko mu am lépp ñeenti soxna xeeti njaaxum yi ngeen dégg ñu di ko def su ko defee seytaane di la janeer loo di la wax ay mbir léeg-léeg mu wax la ay affaire léeg-léeg mu yow de fi mu nekk nii martaba bu wàllu yàlla sàngam fi nekk nii yaa ngi koy séen ah kon wérd wi nga doon wérd fi ne nangami junni yi nga ko wérd faaw nga yokk ko mu commencé di wérd waat yooyu yëpp fekk seytaane moo la koy geneerloo nga di ko gis bokk na ci yi nga xamante ni da leen koy tàggatloo mooy da leen a bëgg a wax ni ndekete xam-xam nekkul li ñuy jàng ci téere yi kese loolu ngay dégg sufiyaan yi di ko wax képp ku la wax loolu xamal ni wax na lu amul xam-xam koy jàng iqra yàlla wax yonent bi jàngal yàlla yabalal yonent bi professeur bu mat jàngalekat muy jibril mu ñëw jàngal yonent bi jàngal saxaaba yi amul kenn ci saxaaba yi ko ñu sol déedéet ñépp dañoo jàngi woon moo tax ñu xam amul benn xam-xam boo xam ni nit ki day toog di def ay xëyti tàggatu ci jaamu yàlla ba xëy am ko déedéet allahuma lu dul li nga xam ne moom nangu nañ ko ni sax na mooy nit ki daal bu jàngee mu ragal yàlla tey góorgóorlu yàlla mën na koo xamal loolu moom mooy wattaqullah wa yuallimukumullah loolu nag ragal yàlla moo koy mën a jural nit te ragal yàlla mi ngi tàmbalee ci jàng amma ay xeeti wird ak ay xeeti zikr ak ay xeeti tàggatoog yooyu nga xam ne nit ñi dañ koy def alxuruju fil falawaat dem ci àll bi dem ci kaaw yi nekk fa doo ziyaare ji feebar doo topp ab néew bu ko defee ngëneel yu bare bare bari mi ngi lay rëcc te fekk seytaane moo lay def looloo ngir am na njaaxum goo xamante ni bëgg na la caa tàbbiloo su ko defee seytaane da lay wax ni xam-xam du lépp la ñuy jàng ci ay téere am na loo xamante ni da ngay tàggatu di wird di zikkar ay zikkar ba xëy yëf yi yegsi loolu su ko defee nit ki mën na caa sukkandiku ba iblis ni ko ah yow daal boo tàggatoo sa xol bi ba mu tàggatu ba ñor ci xeeti tàggat yii ñu lay tàggat su boobaa di nga dem ba da ngay jékki-jékki rek xam-xam bi yegg si ci sa xol bi loolu mooy waral nga gis gars yi di wax naan ah antum ahlu sharia yéen moom yéenay waa sharia fexe leen rek ku njaaloo na ngeen ko caw fexe leen rek ku dagg ku sàcc na ngeen dagg loxoom fexe leen rek ku ku nangam na ngeen ko nangam wa nahnu ahlul xaqiqa ñun waa ñun ñooy waa xaqiqa xaqiqa sharia amul de déedéet su fekkee liñ jublu ci xaqiqa mooy mbirum sharia dëgg dëgg dëgg ak lenn lu ca nekk la ca suñu borom namm waaw kon xaqiqa am na waaye su fekkee leneen lu jéggi sharia wa illaa ñu naan zahir ak baatin su fekkee zahir liñ ci namm mooy nit ki kàbbar di julli la ne ca xolam ak la muy yëg loolaay baatin kàbbaar yi muy kàbbaar ak ruko yeeg njàng ma nit ñi di ko dégg loolaay zahir su fekkee yu mel noonu lañ ci nam moom d'accord loolu zahir ak baatin lay teg amma liñ ca namm nag nga xamante ni muy ay yëf yoo xam ni dafa jéggi sharia yooya amut zahir ak baatin yooyu nit ñi dañ koy naxaatee wallahi loolu amut yàlla seddana subhanahu wa taala ni loolu amut bokk na ca yooya Iblis dalay wax ni ah yow kat fi ne yàgg xadir yéen a yem xadir mooy waajooja nga xam ni maanaam euh, moo àndoon ak yonent yàlla Moussa su fi yàgg kay yëpp boo leen laajee nag xadir yonent la dañ naan déedéet nitu yàlla la. gis nga ban intérêt moo nekk ci te xadir li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi mooy ab yonent la insha allah xadir alayhi salaam te benn firnde rek doy na ci mooy jamono àddina musul am benn yoon. yàlla yónni ab yonent ba noppi di bàyyi benn waay ci biir xeet wi koo xam ne moo ëpp xam-xam yonent bi loolu xel sax mënu ko nangu yàlla yónni bi yonent yonent bu yàlla mës a yónni yow yaay ëpp xam-xam ci xeet wi te xadir am na lu mu ëppalee Muusa kon yàlla du bàyyi Muusa dib yonent xadir ñëw nekkul yonent ba noppi di ëpp xam-xam Muusa loolu xel sax mënu koo nangu waxuma la ak ñuy jàng moo tax kon xadir du nitu yàlla waaye ab yonent la kese yem su ko defee ñoom duñ nangu ni xadar yonent la ndax bu dee yonent la kon yonent sañ naa wuuteeg moromam yonenteem waaye dañ naan nitu yàlla suñ nangoo nitu yàlla dafa am lu mu ca jublu lëm ca jublu mooy ngir saxal seen mbir yooyu ñu ne ah, kon ndeke nitu yàlla dana àgg foo xam ni kat moom mën naa dem ba génn sariya ndax rey bakkan dafa xaraamoon ci diinay Muusa waaye xadir rey na bakkan parce que xadir daa sariya euh, kii la yore baatin la yore Moussa yore sharia kee mi ngi yore xaq xaqiqa Moussa yore sharia yooyu ay xeeti nax la yoo xam ni baat la yoo xam ne ñi jàngul lañ koy naxee waaye ñi jàng xam nañ ko beneen mi ci des mooy boo leen laajee dañ naan ba tey xadir mi ngi dund li ko waral benn waay mooy reeree cere ba rek ah jonjonteeg jabaram ba xolam sedd ah fanaan cab lalam yeewu te naan ah bii kat maam xadir feeñu na ma nee na ma nangam ak nangam xadir faatu na bu yàgg saa boo gëmee ni xadir mi ngi dund ba tey weddi nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi toog naag saxaaba yi benn guddi mu ne leen gis ngeen tey jii ñu ne ko waaw boobu mi ngi tombeek atum fukkeel ci gàddaay nga xam balaa at mi del si faatu na xadis boobu Abdullah ibn Omar moo ko solo mi ngi ci Buxaari yonent yàlla bi nee na fi mu ne nii may wax ak yéen buñ doxaatee téeméeri at ci bopp téeméeri at bi amul benn bakkan bu fi des ci kaw suuf ñépp danañ faatu biñ doxaatee téeméeri at saxaabi bu ñuy wax waasilata ibn asqa mooy ki mujjee faatu ci saxaaba yi ala al itlaq kooku mi ngi faatu ci at mi net fa nga xam ne bu ko dépassé woon rek weddi waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon amul beneen bakkan bu fi desaat kon su fekkee gëm nga ne xadir mi ngi dund kon weddi nga waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee xadir feeñu na maag xadir moo ko wax naa nga maag wax yi ngay dégg ñu naan jaale si woon na yonente beeg moog Ilias dañuy daje at mu jot ci aj daag yooyu yëpp ay xeeti nax la dara wéru ci loolu dañ koy naxee ñi jàngut waaye ñi jàng xam nan ko su ko defee seytaane danaan leen ah yéen de yéen ay waa zahir ñun ñooy waa baatin yéen ay ahlul qusuur yéen yore xollit yi xollit al qusuur comme boo xolliwoon orange dañ naan ah léegi da ngay wax benn waay mu di la saboté mu ne ah day xollee rek ngeen yore wallahi loolu kalimatu kufr loolu ku ko wax dafa kéefar nit lay tuubaat ndax xam nga loolu mooy lan mooy julli woor azaka ku faatu nañ ko miraas yooyu mooy xollit yi maanaam yooyu la ñuy saboté di ko tuddee ay xollit léegi ñoom ñu yor nag allubaab muy doom ya ca biir mooy seen xeeti njaaxum yooyu ñuy def xam nga ni benn waay boo xam daa teg kaasub sàngara ah naan ba ni tap ah, nga wax ko mu naan bu diggee fii am am soow lay doon. te kéemaan gi mooy ay nit yu nuy topp billahi wallahi tallahi ay nit yoo xam ne ay xalifa général la ñuy doon fii nit ñi yaakaar leen ñu dëkk ak ñoom ñoo koy wax da ngay am soxna soo xamante ni fa ngay naanee ji sàngara lii may wax nii fii la am Sénégal koo xam ne soxna soo xam ne fa ngay naanee ji sàngara duñ ko nëbbu seen xeeti kaneti sàngara yooyu la ñuy teg ci seen taabal yi man lii ma wax ku ko gis moo ma ko nettali ku ko gis nga xam ne ca barab yooyu la dëkk moo ci teg bëtam koo xam ne kilifa diine la ñu di ko yaakaare dama ne am na fu muy naane ci sàngara laa wax parce que ñoom bokk na ci li ñu gëm mooy mbir yi mën ngaa dem ba sharia dootu la tënkati keneen ci sàngara yii mooy yu seer yii nga xamante ni sa waay baagoro du ko naan yooyu la ñuy naan lii maa la ko wax fii la am lii boo demee ci barab yi nga xam ni man fay am ña fa dëkk xam nan ko duñ ko wax nag lu tax parce que yaakaar nañ ni buñ ko waxee njaaxum fekk leen ci bi ci mooy jàpp nañ ni loolu mën naa nekk ndax nit ki mën naa def comme tasawuf moom yoon la woo xam ni nit ñi dañuy jàpp ni sharia mën na laa bañ a tënkati su ko defee comme ku sharia tënkatut kay wax dëgg yàlla boo takkee loolu ñeenti jabar amul problème ku sharia tënkatut kay boo demee ba mu yàgg nga naan sàngara amul problème looloo tax fi mu nekk nii buñ la lekkalee alal da ngay perte loolu lañ wax de da ngay dégg ñu naan ñoom diw de ah buñ la lekkalee alal mu bee nga xam ne perte nga ndax àllaaxira doo fayeeku parce que sharia leen ba di ak xeeti njaaxum yi ngeen di gis ëppal gi ci ay jigéen ëppal gi ci alal ëppal gi ci nang mboolem xeeti mooy yàlla yi ngay gis dañuy nekk ci ay activité ba julli jot ñu ne benn événement am na fi publiquement rajo yee ko teg ci rajo yi laa ko déggee waa joo xamante ni mooy porte parole ñoom diw ah mu ne ah fi ne da julli yeeg koor yi moom dañ ciy nab nabi rek waaye daanaka moom amaluñu benn njariñ moom sañ bi gàddul nañu lépp wallahi publiquement lii moom sax rajo publiquement julli yeeg woor yeeg yooyu dañ ciy nab nabi rek waaye sëñ bi gàddu nañu lépp loolu kalimatu kufru loolu ku ko wax même bu fekkee façon loolu sax kalimatu kufru nga wax baatab kéefar ndax dees na la àtte kéefaram déet nag allahu aalam wallahu yatawalla sarair kooku mbiram suñu borom la ndax àtte nit ñi moom loola mbirum qaadi la fii ci àddina bu dee am na wa illaa mu dee mbirum suñu borom ci àllaaxira léeg-léeg nga dégg ñu ne ah yéen de xam-xamam sariya bi man léeg-léeg ma def ak ñenn débat am na ci ñoo xamante ni ñoo nekk doon ay ndongo ci daara ja di jàng léeg-léeg nga def ak débat kenn ndeysaan da ngay wax lu am fulla mu xàqtaay la ba xalangu ci suuf mu ne yéen da ngeen yaakaar ni xam-xam lépp ci téere yi lañ koy liira ah yéen de lii moo tax du ngeen avancé mukk gis nga xadisu yonente bi ngay wax ñu saboote la te loolu kéefër la timit istihza bi diin bi ayatillah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ah léegi yàlla ak yonente bi ak ay ngeen doon saboote ah wala in saatum yaqul inna innama kunna naxudu wa nalaab moo ne boo leen waxee dañ naan ah moo ne dañ doon kaf donc suñu borom mu ni même bu ngeen dee kaf laqad kafartum baada islaamikum génn nga ci lislaam kon da war a tuubaat dugg waat ci lislaam yii nag boo koy waxee ci réew mu mel ni mi ñu nekk dafay jafe trop li tax muy jafe mooy nit ñi ci lii lañ màgg moom la ñu xam waaye jàpp naa ni mboolem liñ màgg te xam ko yëpp nangu nañ koo sot ba mu des diine tabax ya fi néewoon néewatu fi mbaar ya fi newoon newatu fi façon woto yéen daan war ci 1945 ak yooyu waratuñ ko façon tabax yéen daan tabax tabaxatuñ ko yére yéen daan sol xam ngeen ni suñ paa yi xeeti bolog yéen daan sol solatuñ ko lépp lan nangoo sensé waaye bu dee diine moom déedéet du sens ahankay nit ñi lan nekkoon te muy lu baax dañ leen cey ñaanal yàlla waaye lañ nekkoon te baaxut kat faw ñu leeral ko ndax yàlla moo ko gàll ci roosu ñu xam su ko defee gars yi dañ naan yéen day axadatum ilmakum mayitan an mayitin an mayit ku dee moo jëlee ci ku dee hannaat moo jëlee ci ahmad ahmad jëlee ci abi hurayra abi hurayra jëlee ci yonente bi yonente bi jëlee ci jibril jibril jëlee ci yàlla ku dee jëlee ci ku dee ku dee jëlee ci ku dee ku dee jëlee ci ku dee muy doog a jëlee ci yàlla ñun nag axadna ilmana xayyan an il xayi alladi laa yamuut ñoom seen xam-xam moom soxlawut xaddasana fulaan an fulaan an fulaan déedéet ñoom soxlawuñu xadis te saa boo xamante ni nit ki soxlawul xadis na yëg ni islam moom amatul ci moom soxla ndax yàlla moo ne yonente bi wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wàcce nañ ci yow li nga xam mooy sunna ngir nga reeral nit ñi yonente yàlla bi ne ala inni utaytu alqur'ana wa mislahu maahu yàlla jox na ma alquran joxaale ma lu mel ni alquran ma boole kook moom kon sunna moo koy leeral ñoom nag dañuy wax ne ah yéen ci ku dee ngeen jëlee mu jëlee ci ku dee mu jëlee ci ku dee mu jëlee ci buxaari buxaari dee na mu jëlee ci ahmad ahmad dee na mu jëlee ci abi hurayra abi hurayra dee na mu jëlee ci yonent bi yonent bi dee na ñu doog a jëlee ci yàlla ñun nag suñu xam-xam direct lay doon ci yàlla lay jóge amul kenn ku xam-xam di jóge ci yàlla direct ba cib yonent ab yonent yàlla da koy waxyu al waxyu bi waasita jibril alayhi salaam loolu amul yàlla malaaka yi ci kenn la ko doon wàcc fi mu ne nii képp ku la wax ni jibril dikkal na ko ko wax na lu amul malaaka da koy dikkal wax na lu amul jibril gëj naa ñëw keroog ba yonent bi jógee fii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci yi nga xamante ni seytaane da koy def ci ay nax ginnaaw bu mu jógee ci sufiyanke yi moo tax gis nga xeeti wérd yi ñuy wérd ak yoo xamante ni dëpp likk li mu wérd lan la bu fekkee li muy wérd moom dëppoo naag la jàngale amul problème kooku mbiram la kenn ku ci nekk xëy na yaa xool na ngay defee l'essentiel na nga fexe bu ca boole lu ci bokk waaye seytaane dana fexe ba xeeb loola li yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ñu créé yeneen yu bees moom ngeen fi gis yi bees yi xam ngeen ko lépp loo xam ni boo laajee ka la ko jox mënu la koo indil tegtal ci al ak sunna xamal ni loola ci yu bees yi la bokk yonent mu ne wa iyaakum wa muhdathati l umur bàyyi leen xel ngeen moytandiku yin sos sama gannaaw fa inna kulla muhdathatin bidaa bokk na ci seytaane bu dikkalee ñooñu xeeti colka yi ay mbasin ay mbasin riche loolu loo koy doyee su ko defee su fi ankay donte loolu sax ak ak wuute am na ci dama koy junj rek xëy na ba beneen yoon waaye li tax tasawuf dañuy wax am na ñuy wax ne mi ngi jógee ci as suuf suuf mooy xeeti leen yooyu nga xam ni comme perkaal lay doon nga xam ni ñoom dañ ko doon sol loolu rek la ñuy nangos bopp bi day cuqaaral doo ko peñe doo ko diw sedd bi day ñëw nga weex tal doo nangoo melan parce que da naan loolu bëgg àddina la lekk mu ne ah man nag yi léegi dootuma naan soow lu tax parce que am naa amaana nag bi day jaar ci toolu jàmbur te loola araam na ah ba mu yàgg mu ne man sax bàyyi naa lekk yàpp définitivement ndax wóorut ba xam lekk nañ araam looy lekk ñu ne ay xob la ñuy lekk su ko defee da ngeen di gis ñu jeex takk furi seen yaram yi moo tax Ibnul Jawzi boo demee ci téeram bu am solo bu tuddee talbis iblis mooy technique yi iblis def ba nax nit ñi gis nga fii lay jaaree nit ki nag bu ko defee da ngay dem ba sa yaram lim soxla ci ndox dootu ko amati lim soxla ci deret dootu ko amati bu ko defee loolu dafay jeexintal ci cerveau ci xelum nit ki ndax sonn bu ëpp ak manqué deret ak manqué lekk ak manqué naan dafay jeexintal ci xel mi ndax yooyu faw muy fonctionner pour xel mi man di xalaat su wàññeekoo xalaatukaay day wàññeeku su ko defee seytaane day jékku xel mi pour di ko foyee mu ne looloo waral ngay gis xëy si njaaxum yi ngay dégg gars yi di ko wax kenn day jékki-jékkam yàgg mu yëkkati mbubbam ni ma maa fil jubbati ila allah biir mbub mi de dara newu fi lu dul yàlla loolu mooy man yàlla laa nga gis benn waay bu ne ah yàlla jeeg poto xeer week yooyu yëpp ñoo bokk benn àtte yëpp ay yàlla la yooyu xeeti wax nit ki day toll ci ay tolluwaay da ngay dégg koo xamante ni bu daggee aw saaga ñu ne ah kii mi ngi bëgg a yegg ca yàlla nag da wér di wér di mu yàgg nga dagg saagaw ndey ñu ne ah kii de ma ngay bëgg egg loolu ci seeni mandarga la bokk li may wax nii ñi xam am na yoo xam ne boo koy wax day bees ci nit ñi dañuy yaakaar ni yëf yi amul fekk yëf yi am na de am na ci ay yoon yoo xam ni ñoom jàpp nañ ni njaaloog sàccac yooyu yëpp dara nekku ci bu ko nit ki defee am na la ko koy faxasal ah yow bu fekkee nit ki na ma wir wir di sangam wala salaatu nangam saa boo ko wirdee lépp loo amoon ci ay bàkkaar dana ko bombardé nit ki gëmee ko noonu kon kay mën naa dem jabari jàmbur yéeg ca su ko defee su pare daal def salaatu boobu mu daal di jeex bal sax nag am na ci xeeti salaatu yoo xam ni boo demee ci téere original yi cosaan yi li may wax nii am na ñu bari dañoo nekk ci ginnaaw mbooloo yi di yàlla yàlla ngi rek xamul lu xew waaye boo demee ci marché yi téere yii may wax ma nga fa ay téere yoo xam ne ñi sos yoon yooyu ñoo ko taalif soo ca delloo ñoom dañuy wax ni salaatu nangam boo ci wérdee benn per kese moo gën nga jàng alquran juróom-ñaar téeméeri yoon loolu lii lu ñuy keree de ci ay téere la am na benn waaye boo xamante ne suma mbokk la mas nañ ciy def benn débat bi ko waxee loolu mu ne ah, ma loolu ku ko wax mu ne ko wax ma ne ko yow lii mooy wane li nga topp xamoo ko ndax yow li nga topp man mi ko toppul sax xam naa ci loo xamul ma ne ko demal ci marché bi nga jënd téere tel page tel boo ci delloo li ma wax fa diwa ko wax ñoom ñooy wax loolu parce que loolu ay tolluwaay la seytaane moo lay yóg yóbbu ngay yéeg mu lay yóbbu nga yéeg di la yóbbu ngay yéeg ba nga yegg ci barab boo xam ne njaaxum yooyu yëpp boo ko waxee du la wàññi dara bokk na ci yi nga xam ne seytaane da koy def mooy ifraatul mumin fi zuhd alxattu ala al ifraat da lay xirtal ci ëppal loolu nag du sufiyaanke keneen ak keneen jullit lépp la mën a dal mooy nit ki day ëppal maanaam day dem ba li yonent bi jàngale loolu da koy xeeb yow yenn saa salaam waxuma la julli yi bis bu nekk astaghfirullah man war nga ko def téeméer suba téeméer ngoon subhanallah wa bihamdi téeméer suba téeméer ngoon allahu akbar téeméer suba téeméer ngoon subhanallah baqir salahat subhanallah alhamdulillah allahu akbar bu nekk am nga téeméer yoon laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walhamdulillah kulli shay'in qadir téeméer yoon allahumma salli ala muhammad gàtt gàtt fukk la hawla wala quwwata illa billah amut lim laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin amul lim jàpp naa ni yéen jàngale damay wax ni benn bis toog naa ma ne xaaral ma jéem a xool loolu lan la war a coûter ci heure bi ma ko seetloo ñaari yoon ba ñetti yoon gis naa ni pour nit ki def ko respecté ko 30 minutes dana ko jël suba 30 minutes ngoon soo ko respecté laa ja defee ko na mu waree dina la jëlal 30 minutes suba jëlal 30 minutes ngoon yaakaar naa ni kooku ëtt am jot sax gu muy defee leneen kon yonent bi occupé na la ba noppi dinga i occupé ci leneen daa fekk bàyyi nga la yonent bi jàngale woon soo defee xërtal nit ki nag ci ëppal ëppal ci xeetu dëddu àddina du ma du ma war oto sàngam du ma nangam lépp lu araamut yàlla nee na bu leen araamal li yàlla daganal qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadi wa tayibati min arrizq yooyu nag su ko defee nit ki nga xamante nii moom daa war a dugg oto fii dem ba Dakar muy damay dox bu fa dee dafa xaru bu bu dee dafa xaru de misaal moomu doonte eh, dama koy jël lil i'timad doonte borom xam-xam hadis yi am nañu ci wax mooy fa inna al munbatt la ardan qataat wala zahran abqa ki ñuy tuddee mun bat fa mu jamoon yëggu fa la mu waroon dee na misaal bi mooy benn waay bu war a dem fii ba Tamba nit ñiy dugg oto ay horaire moom mu ni sama mbaam mi ci sa gétt gi laay war mu ne fa innal mun batta waa jooju laa ardan qataat fa mu moon yëggu fa wala zahran abqa li mu waroon deena na ca yoon wa su ko defee boo muy tuut moo cay topp kon xeeti ëppale yooyu mooy jural nit ki njaaxum yi nga xam ne mooy am bokk na ci seytaane fi muy dikkee nit mooy itraau itraau nafsi bi taqbili naasi yadahu mooy di jay nit ki nag ci nit ñi fóon yi lay fóon ak di la jugal islam day tere loolu islam day tere loolu nit ñëw nga jug di gàttandoo ka nangam ak wala jug di ko jox sa place yooyu l'islam da koy tere déedéet nit ñaa ngi koy def nag yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg boo toogee nit ñi taxaw di la wër wa illaa ngay ñëw nit ñi jug seen place di la ko jox nee na préparer sa kër ci sawara islam day tere loolu kilifa nag ma nees na koo nuyu de waaw dinañ ko nuyu moom mi ñëw moo waroon fekk ni ñu nuyu leen ñun li ñu xam li ñu jàpp ne moom mooy teggin mooy ñun ñëpp ñu daal di jug dem di ko nuyu déedéet moom mi ñëw moo war a nuyu nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu musaana ñëw mooy nuyu nit ñi waaye du ñuy jug di la nuyu yonent yàlla bi ay njàngaleem dani ki war na nuyu kiy dox te xool xool xool yërmande ni nekkee foofu yow ki war nga romb kiy dox nga ne ko salaamaaleykum wa rahmatullah waaye romb ko giif mën am lu mu yëg mbooloo mi gën a bari nañ nuyu mbooloo mi gën a néew yow kenn yaa dajeeg mbooloo mi yaa leen war a njëkk a nuyu yow mii ñëw yaa war a nuyu ñu toog gis nga waaye bu ko defee nit ñi dañuy ñëw di fóon sa loxo yi di barkeeloo ah yu demee noonu déedéet yooyu lislaam da koy tere dëgg la fóon loxo nag mën naa nekk bi charte su fekkee nit ki ñi koy def ëppal taxul ñu koy def te yow mi ñu koy defal doo ci gis sa bopp Anas ibni Malik daana jël loxo bi def ci fii parfum buñ ko laajee mu ni ah man xanaa sama ndongo lii moom a lakkal rek Saabit al-Bunnaani moom fu ma tere naa ko ba tay gis nga ñoom dañ ko doon tere mu ni tere naa ko ba tay waaye moom nee na balaa xolama seet day fóon loxo Anas su ko defee mu ne comme da koy fóon kay naa ci def parfum ngir waaye loolu daf ko doon tere kon su fekkee gisu ci boppam te néew lu muy am xam nga ne yow gone gu xonk cooy juddoo ko barki dem boo njaay sa waay sa baay nekkoon nanga nekk nangam ponkal moo xam ni mook sa maam ñoo doon ànd ñëw di raam ci sa kanam loolu daf xaraam kenn du raam ci kanam doomu aadama mbeteg euh, ab jaam ak ak boo kenn du raamal doomu aadama loolu ak doyadi la ak ñàkkal fayda sa bopp nit ku am ful la doo sëgg comme ni bàyyi ma yi sëggee te yàlla siggiloo woon la nga yore ñaari tànk ak ñaari ngay raamal doomu aadama loolu dafa xaram kenn du ko defal kenn nit ki da ngay dem ba ci moom nga nuyu ko respecté ko jox ko cër moom bu dee moo ñëw mu nuyoo dama ni même bu fekkee dafa ñëw xëy na teggi nit ñay taamu rek jox ko benn place yonent bi sallallahu alayhi dafa mës a ñëw fekk saxaaba yi toog mu dem toog ca wàllaa ca wetu naaj wa saxaaba yi ni ko yegg si mu ni déedéet ki mujjee ñëw moom moo war toog ca gannaaw saxaaba yi ni ko boo toogee ca gannaaw nooy jàngale mu doog a ñëw toog ci digg bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy am jàngale bokk na ci seytaane fi muy dikkalee nit ki mooy suñuy fóon loxoom wala di barkeelu ci moom ah ñun ñi ñu ngi fàttaliku bi ñu nekk ca àll ba ca kaw ga sunu maam yi nga xam ne ay sëriñ lañu woon subhanallah da ngay gis koo xam day ñëw ana sëñ bi ñu ne daa dem Thiès xam nga lu muy def day dem ca dàllu marakis wa fëgg ko suuf sa ca nekk lay def ci benn kii rek ëmb ko yóbbu ndax day barkee loolu loolu dafa xaraam amul kenn ci kaw suuf baada nabii sallallahu alayhi wa sallam yutabarraku bi shay'in min umuri kenn la Abu Bakr wala Omar wala Ousmane wala Ali fadlan an gayrihim kenn ku ñuy barkeelu ci ay mbiram amul déedéet yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi jeex na buum googu moom sunu borom dagg na ko kenn du barkeelu ci kenn bu baaxee na la ñaanal su fekkee daa baax na la jàngal su baree xam-xam na la jàngal su baaxee na la ñaanal su la ëppalee na la may bu la rombeek otoom na la yóbbaale waaw loolu de li nit man mu di ko defal nit amaa di barkeelu di yaakaar ay yiw yuñ mën a fay ëllëg àllaaxira déedéet bokk na ci pexe yi nga xam daf koy def mooy waswaas seytaane day ñëwal nit ki di ko defal waswas waswaas ñu bare bare bare da leen dal léegi da ngay gis koo xam bu duggee ci wala bi di sangu balaa génn bul xam kañ la fekk seytaane moo koy def yow raxasal fii yow fii tooyut ah, loolu am na ñu ma daal ñu bare bare bare leneen ngay jàpp da nga gis koo xam ne wallahi waswasa bi da koy téye ba waxtu julli waral ko jàkka ja fekk seytaane loolu la bëggoon ah est ce bi raxas nga ko est ce bi set na est ce que xoolal dëgg bi la koy def loo ngir nga nga yàgg ci li ngay def gis nga bu la yàqalee fële ca wana wa léeg-léeg mu xërtal la ci nga ñëw yàkkamte rek dugg fàttee def zikr bi nga war a def gis nga léeg-léeg seytaane day ñëw dafa la di tuddee salas salas xam ngeen seytaane comme day daw ci yaramu doomu aadama comme rek ni muy dawee moo tax day ñëw su yegsee rek daal di fàdd li nga xam mooy siddu sawukaay bi loolu feebar la dañ koy faj waaye seytaane da koy waral tamit su ko defee nit ki di am siital nga xam ni foo duggee wala fa ngay nekk di siital ak a siitalaat ak siital siital goo xam kenn xamul ku mu doon fekk seytaane moo la koy def bëgg nga tarte waxtu julli bi yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam nee na seytaane dana ñëwal kenn fekk muy julli mu ñëw di ëf ci suufam di ëf su ko defee yow muy taxaw di julli yaa ngi sentir ni ngelaw mooy génn ci yow fekk dara génn ci yow Iblis a koy def pour bëgg nga yàq julli gi bala ngaa ñëwaat fekk julli mbooloo raw la moo tax yonent yàlla bi ne ku ko déggati maa ngi fii ak xet xeeñu la bu wane ni ci yow la bàyyi ko wala nga dégg kàddu bu lay wane ni ci yow la bàyyi ko mu ni bul dagg génn tout le temps tout le temps te du règle yonent yàlla seytaane day ñëw ci jigéen te loolu pour mu ñëw yaa koy may mu dugg sa yaram mu fàdd benn sidit am na benn jigéen bu ñëw ci yonent bi saa ni ko ah man day fi ne mënatumaa téye sax deret ji ah innama asujju sajja deret ji day sotteeku di yururi comme ab rabina bokk na ca la ko yonent bi waxoon saa sax innama dalika irqun min ashaytan loolu këdd la gu bàyyi ko ci seytaane seytaane day ñëw ci sa biir bi seet sidit yi nga xam ni moo jëm ci kanamu ndaw si mu fàdd ca génn su ko defee sirit googu mooy génne deret pour deret bi jaxasoog deretu gis baax bi ndaw si dootul xamati bis yu mu set ak bis yu mu su ko defee mu am bis yoo war a julli te doo ko julli wala bis yoo warta julli te nga julli ko fekk moom loolu la ci jublu woon moom am na ko moom léeg-léeg seytaane dana ñëwal comme li ngeen di wax dëmb dëmb ci ba ci baat bi kalima bi dëmb wallahi loolu amut wallahi alazim loolu amut amut ci lislaam de déedéet amul xam nga lu am seytaane yajri fi ibni aadama majra dami day daw ci yaram comme ni deret di dawee seytaane ni muy def pour bëgg a yàqal ay diggante léegi benn waaye ngi nii boo xam ne seytaane bëgg naa yàq diggante famille diw ak famille sànga soow miñ dar ba noppi seytaane day ñëw def ca lam ca def bu ko defee fexe ba waa ji bu koy naan du wax bismillah gis nga loolu su yeggee ci biir bi biir bi dafay metti jamono jooju su biir bi di metti métti bi day yegg ba day yéeg ci li nga xamante ni mooy cerveau bi su ko defee nit ki la ko seytaane di janeerloo ak di ko xalaat loo mooy soow mi kat dañ koy def nangam waa ji di bitar ñi ko ko yuuxu wuy diw wuy diw moom a jàpp wallaay diw jàpp ko fenn lii benn firnde la boo xam ne ku essayé gis ko amul loo xam ne naan nañ mooy sëriñ diw gis nga kooku di waccax buñ ko yeewoon ba mu ni ngod waaju sellal tiim ci moom di jàng ayatul kursi léegi tey nga gis loo xam ne day leer comme bi diw bëcc comme comme comme comme jantab bëcc léegi dana wax dana rocceeku dem mbaa mu wax lu leer yooyu amul de yin ci sa masa masa fekkee ak ñi ko fekkee ñëpp te xam lii may wax bañ ko essayé gis nañ ci ndam wuy diw diw mooma jàpp diw mooma nangam nangam ataaya ji ma joxoon tey ci ngoon soow mi ma joxoon bu ko defee ñu jàpp ni kii daf koo liggéey fekk déedéet seytaane moo def loolu bokk na ci ay pexeem dana fexe ba dugg see sa kër doo wax bismillah yan ci yàlla bi ne boo génnee bay ñëw seytaane boo dugg see rek mu dugg si moom ali adraktul mabita am naa fu ma fanaan mu ne bu ñu la taajalee reer waxoo bismillah mu ne wala acha mu xaq tay ah, wala acha far nag am naa reer nag faf su ko defee ngay lekk muy lekk gis nga seytaane léeg-léeg dana dikkal nit ki ngay lekk muy lekk te fekk li ngay lekk ci moom la jëm jëmul ci yow benn bis benn waaye doon na lekk yonent bi ñu taaj bool waa ji ñëw dugal loxo càmmoñ bi yonent bi ni ko nikk sallallahu alayhi ni gaa yi lekk leen ñu lekk di lekk ba mu yàgg mu ni gis ngeen jullit ci xam genn ak mbàq la yore waaye seytaane ñaari mbàq la yore gis ngeen kii sànq bi mu yore loxo bi seytaane ko doon lekk loo gis nga léeg-léeg nit ñi nga xam ne seytaane daf leen a daaneel ñuy daanoo ay rab ak yu deme noonu man nga indi paanab ndox jox leen ñu naan paanab ndox ñuy naan ñuy naan ba paan bi jeex fekk loolu du moom de seytaane moo koy def waaye gis nga bis boo ne ko waxal bismillah day lànk gis nga bu rëccilee ba wax bismillah mënta naan lu ëpp li doon naan yii ay mbir la yoo xamante ni ku am looy waxuma weddi waaye sikk sàkk rek ku ko sikk sàkk rek boo ko essayé gis ko bokk na ci seytaane pexe yi muy def mooy day dikka doomu aadama ci jaamu yàlla yi muy def di ko fàttali loo xamante ni mooy tax xelam génn ci julli gi xoolal rek programme yu bari balaa ngay kàbbaar nekkul sa xel bi waaye bi nga kàbbaaree rek mu commencé ñëw ah waaye yow boo paree foo war a dem yow boo demee fii boo paree nangam loolu mooy waral nit ki jamat ci julli gi yent yàlla bi ne ne képp ku seytaane dikkal ci buntu boobu musulul ci seytaane sax na ci biir julli boo toogee ba nga sentir loolu nga def nii ñett yoon sa càmbañ nga wax aoudu billahi min asheytan rajim seytaane dana ñëw di tiital ci nelaw ak lu nelaw yonent bi taxaw na di julli sallallahu wa sallam ba mu yàgg mu daal di nii rek yóotu di yootu saxaaba yi ci kanam jaaxle waaw kii lu muy def nii ñu jékki-jékki mu yàgg rek mu yóotuwaat yootu bu gën a foor saxaaba yi ni waaw bi mu paree ñu laaj ko waaw lu xew mu ni Iblis moo dem jafal safara ñëw bëgg kool xarit sama kanam bi lakk sama kanam bi mu ni bi ma yootoo yootu mu njëkk bi jotuma ko si bi yootuwaatee nag laa def ndodd gi sama baaraam bi yegg si ci gémmiñ gi mu ne xool leen sama baaraam bi yuut yaa ngi nii yent bi ne gis ngeen yuut yi mi ngi nii mu ne bu dul woon ak ñaan ak Suleymaan ga ne yàlla da ko may nguur gu keneen dul am dinaa jàpp Iblis yeew ko ci poto bi ba bu xale yi xëyee di ko seetaan ñu xam ne maam Iblis a bokk na ci seytaane li muy def mooy da ngay denc waxoo bismillah mu ñëw sàcc ko ñaata ci biir kër yi sama wujj ko sàcc sama wujj péter gee ko sàcc sama nangam ak nangam wallahi jiiñ ko xam ne bari fekk seytaane ko def li ñu gën a bëgg nag mooy xaalis or surtout or nag dañ cey aay moom da koy denc sa biir armoire kenn laalu ko kenn dugg fa nga ñëw fekkoo ko fa fekk da koy def yent yàlla bi da ci hadis bi dal na abi hurayra day dal na ubay ibn kaab kenn ku ci nekk dañ koo dénkoon tàndarmay sarax mu téye tàndarma ji waaye saabu bu yeewoo gis dàmba gi manqué mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko yonent bi ni ko seytaane la ci mu ne xaaral tey moom du ma nelaw dama koy tëru mu toog di ko tëru ba mu yàgg rek seen benn waay buy ñëw xale lu góor la loxo yi boo ko xoolee comme tànki kanamu xaj noonu la mel ay kawar la sax comme kawari xaj nee na bi mu see rek mooy wax bismillah dal di yoot ba ni ko nii tee ni ko hey nit nga am jinne mu ne ko man jinne laa mu ne ko ah jinne nii la ko yàlla bindee mu ne ko ah damaa soppee ko de waaye yëgal ni man mii ci jinne yi gën a dëgër saytaane yi gën a dëgër ca laa bokk mu ne ko gis nga yow tey dama lay boole ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa di ko sarxu sama njaboot gi wax ay waxi yërëmtalu xam nga daa am ñoo am sentiment ba mu baal bi mu xëyee wax ko yonente bi yonente bi ne ko dana dellu si xaaral rek ca beneen yoon mu dellusiwaat ba ca ñetteel mu ne ko gis nga tay moom du ma déglu sax li ngay wax ca yonente bi lañ jëm sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nag gis nga kaay ma wax la loo xam ne moom musoo ko am fenn mu ne ko lan gis nga boo bëggee mucc ci ñun jàngal ayatul kursi bu soobee yàlla doo dootuma xandati fii fépp mu ne ko gis nga nit bu jàngee ayatul kursi ci guddi ba suba seytaan du ko mën a jege ngoon ba guddi du ko mën a jege yonente bi waa ji ñëw daal di ko koy nettali yonente bi reetaan ni ko sadaqaka wa huwa kazu wax na dëgg de waaye fenkat bi wax dëgg tay maanaam wax na dëgg seytaane ayatul kursi ci boppam ni mu koy def dafa jéggi dayoo yooyu boo ko toppee fi muy jaar nit ñi madaaxil yi dafa bari bari waaye goo xam ni maanaam abut benn catégorie ci nit ñi barab booy mën a nekk wala jaamu yàlla gooy mën a nekk lu tul seytaane dana mën a ñëw pour fexeel la bokk na ci yelay musal ci moom mooy ngay fexe di muslu ci moom di làqatu suñu borom ndax suñu borom rek moo la mën a musal te loolu junjoon naa ko ci xutba jee weesu bokk na ci a musal ci moom mooy bu fekkee da ngay julli bu lay waswasal nga musulu ci moom bokk na ci yooyu musal mooy ngay jàng alquran te wax aoudu billahi min shaytan su suñu borom ni saa boo jàngee alquran jël naa kiiraay dox ko sa diggante ñi gëmul yàlla te shaytaan moo ci jiitu bokk na ci yi nga xamante ni moo la cay musal mooy xam ñaani sunna lay dugg jàkk am na lu ñuy wax génn jàkk am na lu ñuy wax te yépp ci musu seytaane bokk na ca dugg wanag génn wanag dugg kër génn kër boo déggee mbaam ŋaax rawatina guddi boo déggee xaj ŋaax rawatina guddi yooyu yëpp benn ku ci nekk am nay zikir yu nit ki war a jàng daf ko war a xami su ko defee yooyu day tax seytaane nga mucc ci moom bokk na ca mooy soo meree nga musulu ci seytaane rawatina nag nit ki buy sëy ak soxnaam li ñuy wax naan seytaane mën naa sëy ak effectivement lu mën a nekk la day nekk nit ki nag ay takk jabari jinne ak yooyu comme ni ko nit ñuy waxee yooyu ay faux problème la amut jinne jinne lay takk nit takk nit xam ngeen a ay xeeti nax la nit ki buy sëy ak soxnaam mu indi ndoxam dugal ca moom it moom seytaane boo waxul allahuma jannibna seytaan wa jannibi seytaana ma razaqana moo tax nga gis xale bi judd déformé wu wala mu judd melul na nga bëgg wa illaa mu nekk am doole ci moom lool fekk yow yaa ñaanul sa ñaanu sunna booba xale yi tamit boo leen tegee dangay gis liir yi ah kii jël bant bala teg kii jël agrab bu teg kii jël puso teg ci nite rek ci intelligence rek muus defe nga ne xale boo xam ne demagul fenn war nañ jël ay balee ki bant balee ki puso ki ay rab di ko teg ci peggam loolu xel sax nanguwu ko seytaane mooy dikk di jaxase di yàq ka weccax ndikoo ka ëf xale yeeg da gis biiru xale bi neewi fekk seytaane ko ëf wala nga gis bopp bi di ubbeeku rek fekk seytaane da koy def waaye saa boo yeewoo nga wax ko oiduka bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin waham min kulli aynin lamma même boo ko bàyyi woon dem marché di dik dem bu seytaane ñëwee fii lay taxaw ko mën a laal saa booy tëdd ixlaas falaq naas nga jàng ko ba ñetti yoon tafli ko sa yaram nii ba mu ra nga tëdd yonent yàlla bi ne ne même bu seytaane dikkee tiim la du la mën a laal yooyu kon ay xeeti muslaay la yoo xam ni maanaam yonent bi jàngale na ko xëy na ku dellu ci ñi nga xam ne ñooy jàngkat yi ñoom xam nañ ko danañ la ko leeral ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq te it musal lu ci suñu noon bi jàpp naa ne am na yeneen mbir yoo xamante ni xëy na mbiru jinne la ci dugg dugg nit keeg di ko jax-jaxal di ko yàqal ay li ñuy wax faru rab yooyu yëpp yu am la loolu ay xuraafaat lu am la effectivement nit ki saytaane bu góor da koy gis topp ko moom ko jigéen bokk na ci aataar yi mën a def mooy ku ñëw di ko labat si rek affaire bi yàqu loolu lu am la de du ay lépp loolu lu wér la lu am la jigéen ji toog dem ba am 30 ans mënta am jëkkër góor gu ñëw ba ñuy waxaale ba dara mu takk fekk seytaane fa nekk kooku am na xeeti ñaan yoo xam ne bu ko defee du dem ci bàyyi jiw du ci fay ñaar dërëm ñaari mali du ko ci fay ndax njàngareem lislaam noonu nag islam da ko bëgg def mu nekk gratuit même nit ñi nii ñuy jël nii jël am paj def ko métier def ko wutukaayu xaalis loolu lislaam da koo tere nit yonent bi nee na man istataa minkum an yu'ina axaahu fal yu'inu ku mën a dimbali sa mbokkum jullit nga dimbali ko bu dee loo xam ne nag jaral nit ki fay ca mu fay ca bu dee garab bi koy jox nga xam da nga koy wuti mu fay ca waaw d'accord waaye nag xeeti jafeel gi nga ko jafeel ba ay nit bëgg koo jël def ko métier nanguwoo liggéey lu dul toog sa bopp rek bu ñu waxee nga def ay xeeti njabar di joxe loolu yonent bi da koy tere yàlla na suñu borom boole ñu musal ci loolu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ربنا عليك توكلنا وإليك أمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من همدات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fi l aalamiina innaka xamidun majid